suñu xel dal na parce que ci département de Pikine élève bu ne dina jot deux masques bo ci yoké li nga xamné ne état bi jox na mën nañ ne kon ci département bi mesures barrières yi nous sommes bien partis pour les respecter masques yi eau de javel ak yenen produits yi vraiment ñoo ngi sant ñëpp di sant monsieur le maire et toute son équipe di ko xamal ne tamit euh, yamul ci joxe matériel bi rek mais dafa ci and ak ñi nga xamante ni ñoo jappelé éducation muy jeunesse conseil de la jeunesse muy CEDEPS muy Croix-Rouge muy artisan yi ñu ngi rafetlu trop vision bon mu am parce que mbirum école du mbiru inspecteur rek du mbiru IF, waaye mbiru ñëpp la te loolu monsieur le maire comprendre na ko bu baax te mi ngi koy jëfi bu baax kon vraiment monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baax di la xamal ne tamit matériel bi nga xam ne moom nga ñu jébal moom nga ñu jébal nii dinañ fexe ba fépp fu mu dem ci école ci CM public lycée public lycée privé yi vraiment dinañ fexe ba ñu ba mu egg foofu ko defee ku ci nekk jëfandikoo ko en tout cas ci anam yu mucc ayib. bi mu ñu woowee ni ñu dafa bëgg defaral euh, ay masques lu tolloo ci 75000 masques ci département de bëgg koo defaral élèves yi loolu dafa nekk loo xam ne dañ ci sawar ndax ku ne xam na ni moment bi ñu toll nii euh, entreprise artisanale yëpp foo ci dem doo fekk kenn kuy liggéey gis ngeen ko ci Korité bi tailleur yëpp dañoo tëj seen i place kon bu bi jox leen commande boo xam ne moom mënoon na koo jox industriel yi parce que xam nga bu ko yóbboon ci industrie yi liggéey bi dina gën a gaaw prix bi dina gën a wàcc parce que foofu la euh, lu commande bi di gën a bëri prix bi di gën a daanu mënoon na ko aussi euh, yóbbu mais daf ni du ma ko yóbbul industriel yi artisan wu département Pikine laa koy jox ñu liggéey ko parce que ñoom en ce moment bi nga xam ne ngi ci ay difficulté man maire man maa leen war a accompagner. fanweer lañu ak juróom-ñett d'abord pour préciser ñoom ñi nga xam ne ñooy collège yi ak lycée yi nekk ci département bi ku ci nekk dinañ la jox juróomi carton d'eau de javel juróomi carton de savon liquide juróomi carton de lave-main ak ñetti carton gel boole ko ak li nga xamante ne collège yi ñaari lavoir pour xale yi mun ci raxasu ci biir lycée ñu jox leen ñetti lavoir pour accompagner leen mom moy xalé yi nga xamné ñu wara a ubbi di wara def classe d'examen yi muy terminale yi ak troisième yi donc ñoñu nga xamanté ñu ñoom ci fara teew loolu lañ leen jox pour que mun leen accompagner ci loolu dans un premier temps and ci aussi ak war leena jox ay masque moy yi nga xamantene mom la laa sol nii élève bu ci nek di nga am ñaari masque pour te permettre bu fekkente ne dindi nga benn bi nga mun ko fóot parce que masque yi c'est des masques lavables nga mun ko fóot denc ko salat benen bi ba bele wo nga jëlaat ko salat ko donc loolu mom motax ñu jox élève bu ci nek ñaari masque mu wara tollu ci 65000 masques yo xamné ne dinañ ko jox élèves du département de Pikine waye joxale aussi 2000 masques ni nga xamante ñom ñoy personnel euh, pédagogique bi nga xamné ñoy ñoo accompagner moy professeurs yi proviseurs yi euh, voilà euh, les principaux ak ñëpp ñi nga xamné ñu ngi liggéey ci accompagner élèves yi donc ça fera un total de 67000 masques yo xamné dañ koy joxé pour dimbali élèves yi ñu mëna commencer ci jàmm ak ci dal waye lolu dañ ci gëreum di ci sant ñi nga xamné ne ñoo ñu ci gunge it ndaxte lii bi liggéey masque yi ngeen di gis artisans yu département de Pikine ñom ñoko def artisans département de Pikine monsieur Cham bi nga moy président antenne départementale bu chambre des métiers bu Pikine mu ngi ni tew mom lañ ci andal ak ci sélection yi nga été def département